分。أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله هيا بنا مع تلك الآيات البينات يذكر ربنا فيها هذا الشأن ويقول جل وعلا في محكم التنزيل في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأتأنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إخواني آيات بينات تصف حالنا قبل أن تصف حالهم كتاب ربنا لم ينزل لعصر معين ولا يتكلم عن أقوام بعينهم وأشخاصهم وكأنه سرد التاريخ إنما يقص القصص الحق ويضرب الأمثال وتتنوع فيه الأساليب وغاية بناء ال- وغايته بناء الإنسان فهو خطاب للبشرية جمعا إلى يوم الدين mbokk jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi borom bi subhanahu wa taala du deñ benn yoon di ñu jokkor bi di ñu duut baaraam pour ñu mën a jub borom bi wàcce ci ñun aaya yoo xam ne bu doon waxtu wu nekk minute bu nekk seconde bu nekk sunuy bët mu ngi ciy tegu kon du nu mel ni nu mel tey lu tax ndax jamono bi aaya yi di wàcc ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel aaya yi doon ci teg seen baaraam ak seen bët ñoom dundoon nañ aaya yi dafa bokk ci aaya yoo xam ne ci Qur'an yépp lañ war a bàyyi xel waaye def ci am yu ëpp doole lu tax ndax yooyu dafa am ñuy wax ne ñoom ci lañ bokk aaya yooyu ñëw naan leen bokku leen lu tax ñu war cee bàyyi xel ndax ku aaya yi ne bokkoo bokkoo su la ci nit ñi jéemee dugal it boo ci jéemee dugal sa bopp it bokkoo te ku la ci jéem a dugal kooku bokkul bokk na ci aaya yooyu ci suratu nuur aaya 47 ba 51 ngalawaay buñ bàyyi ko jumaa tey ñu wëri aaya yooyu borom bi subhanahu wa taala di ci fàttali jullit yi mu ne am na ñoo xam ne dañoo ne gëm nañu wa yaquluuna amanna billah wa birrasul wa ataana ñoom dañoo wax ne gëm nañu yàlla gëm nañu yonent danañ topp yàlla topp yonent waaye lan la aaya yi wax sunu borom subhanahu wa taala di leeral sunu mbir ñun balaa muy leeral ñoom seen mbir tasifu xaalana qabla an tasifa xaalahum muy wax ñun sunu melokaan ñun ñi balaa muy wax melokaanu ñeneen ñi mu ne loolu nag dalay wan ne kitaabu rabbina sunu téere borom la lam yanzil li asrin muayyan soo gisee tey mu mun a wax sunu mbir mooy wàccul ci jamono rek bu ñu xam ne alquran de septième siècle la wàccoon réglé na problème boobu jeex na déedéet alquran wàccul pour jamono wàccul pour génération wàccul pour waxtu moo tax ñëwul aussi di wax ak ay nit kese bàyyi ñeneen wala yatakallamu an aqwamin bi aynihim wa asxaasihim ñëwul naan ñii wala mu naan ñee wala mu naan ñële alquran ñëwul pour loolu ndax bu fekkee kon lool la kon day ñëw rek ne nekk benn téere histoire bu ñuy léeb naan amoon na fi fekke woon ngeen alquran ñëwul pour loolu wa innama yaqussul alqasas alxaq alquran dafa ñëw di ñu nettali histoire yi nga xam ne ñoo fi amoon te muy dëgg alquran ñëw di ñu wax dëgg borom bi di ci joxe ay misaal waaye ci ay façon yu wuute ci ay waxin yu wuute ci ay jëfin yu wuute la sunu borom subhanahu wa taala ñëw indi asalibul quran waaye lan mooy jubluwaayu alquran pour mu wàcc lan mooy jubluwaayu quran ci yàlla di changer asalib yi waxin yi lu tax wa gaayatuhu binaul insan alquran dafa ñëw pour tabax nit moo tax ku bëgg a defaru alquran rek moo la mun a defar leneen mënul defar nit xool leen ñii wootele dañoo bëgg a defar ñoom ñëpp bi ñu woowee nit ñi ca joxuñu leen alquran ña leen wuyu si dañoo yàqu même bu fàkkee waa ji day sangu ba set day soli rëy set day costume day takk karwaat milliardaire la dafa yàqu te bala ngay xam ne dafa yàqu nga jëflanteeg moom tey Sénégal problème yi ñu am du problème mu milliard fu milliards yooyu dugg du dañu ne dañ ko détourné ñooñu détourné ñu ko est-ce que jànguñu est-ce que defaruñ leen est-ce que formé wuñ leen tontu bi mooy ah kay waaye dañ leen defar ci lu dul Qur'an moo tax du ñu defaru képp ku woote mbooloo. képp ku jiite mbooloo te joxoo nit ñi alquran sànq nga leen ndax alquran dafa ñëw wa gaayatuhu binaaul insaan alquran dafa ñëw pour tabax nit pour defar nit ba nit ki nite ba xam lu muy def ci ci kaw suuf fa huwa xitaabun lil bashariya alquran dafa ñëw wax ak ñëpp loolu moo tax doo gis ci alquran ee yéen mag ñi ee yéen ndaw ñi ee yéen jigéen ñi ee yéen waa déedéet yaa ayuha nnaas loolu nga ciy fekk yaa ayuha alladina amanu loolu nga ciy fekk parce que dafa bëgg doomu aadama yi jag ñépp la waxal doomu aadama yépp ci kaw suuf alquran dafa wax ak ñoom haadi l ayat aaya yi mbokk yi ci suratu nuur wa ka annaha tasifu xaalana fi asrina an nakad dafa ñëw di wax sunu melokaan tey nii nu mel nii jullit yi alkoo réer dafa ne islaam julli àjjuma kese la wala koor kese la wala tabaski la wala wala sunu boroom ñëw di ñu wax tey sunu melokaan mu ne ñooñu ñëw nañ naan amanna billahi wa rasulihi wa ata'na wa yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ña ngay wax ci seeni làmmiñ loo xam ne eggul ci xol yi maa laysa fi qulubihim la ñuy wax eggul ci seeni dënn duggul ci xol yi alquran yàgg naa dàq ñu mel nii qaalat il aarabu amanna yàlla ne du dëgg qul lam tu'minu wax bu eggul ci xol jaamu yàlla bu eggul ci xol jëf bu jógewul ci xol jëf jooju baaxul borom baaxul yàlla nee na ñii yaquluna bi alsinatihim maa fi uqulihim walam yasil ila imanihim li ñuy wax rek ci ñaari mbir la bàyyee ko ci seen làmmiñ ak seen xel gis ngeen ci xel yi la mbir mi bàyyee ko ginnaaw ba ko xel yi xalaatee làmmiñ yi daal di koy wax waaye yàlla nee na du dëgg eggul ci xol yi eggul ci ngëm natt leen tey jullit yi natt leen tey jullit yi réew mi seeni jëf ak seen ngëm kon ngeen xam ne yàlla moo wax dëgg te du deñ di wax dëgg borom bi ne mbir mi eggul ci seen ngëm eggul ci seen ruu yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na wa ba'da dhalika laa nara asaran li hadha al iman gëm nañu yàlla ku gëm yàlla bu waxee day feeñ su jëfee day feeñ ku mu bokkal kër day feeñ ku mu bokkal liggéey day feeñ ku mu bokkal oto day feeñ fu mu nekk day feeñ ku gëm yàlla gëm yonent ne topp nañ yàlla topp yenent waaye ginnaaw ba ñooñu waxee loolu ba pare wa baada zalik ñun ñëpp dañuy ànd laa nara asaran li haza al iman kenn du gis jeexintalu ngëm boobu waa ji di woote ci ngëmam ولا نرى أن هذا الإيمان قد حرك النفس المؤمنة لعبادة الله دوني غيس ngëm googu waaji di woote ngëm gi yëngal ko ba mu jóg di jaamu yàlla déedéet gëm naa yàlla rek foo ko fekk mu ngi ci grand place du damier bi waaye mu ne gëm na yàlla foo ko fekk mu ngi ci carte mariage yi gëm na yàlla foo ko fekk programme pays mi mu ngi ci poosam foo ko fekk mi ngi lekk riba foo ko fekk mi ngi tappale foo ko fekk mu ngi triyaane waaye boo waxee rek mu ne la wallahi julli naa fajar jàkk gënoo maa gëm ndeysaan ngëm googu du ko yëngal du ko yóbbu ci jaamu yàlla subhanahu wa taala wala li imarati l ard ngëm googu du ko yóbbu pour mu dundal suuf pour mu fexe suuf dund ni ko yàlla bëggee waaye wala li tabligi daawa allati amara allah ngëm googu du ko yóbbu mukk mu nekk soldat benn wootekat ci wootekatu suñu borom subhanahu wa taala foo ko fekk moom wootekatu seytaan la ba pare nee na gëm na yàlla ku gëm yàlla gëm yàlla daf koy yëngal mu jëm ci jaamu gëm daf koy yëngal mu nekk kuy dundal suuf te dundal suuf mooy defar ko wala tufsidu fil ard baada islaahiha yàlla nee na bu leen yàq suuf si tey boo nee nit ñi bu leen yàq suuf ñu yaakaar ne mooy jël mbalit sotti ci suuf jël foos sotti ci suuf suuf si li koy yàq mooy ñàkk fee teg programme bi yàlla wàcce loolu mooy yàq suuf am ngeen ay gendarme am ngeen ay militaire am ngeen douane am ngeen contrôle de prix am ngeen am ngeen am ngeen mais lan la jur dara baaxul parce que ñooñu baaxuñ parce que loi yooyu ñu tënk loolu baaxul su Sénégal gi yëpp 12 millions yëpp nekkoon ay policiers du baax baaxul Makka jamono yeneen Médine amuloon police amuloon police waaye dara du réer dara du làqu dara du fàdd kenn du agressé kenn kenn rayul kenn lépp a normal da ngay gis sax nit dem mooy yàlla jigéen dem na mooy yàlla ëmb ñëw ci kanamu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah e yow yonent damaa def bàkkaar damaa bëgg nga laabal ma balaa may dajeeg sama borom loo def dama ëmb fi may wax ak yow te kenn fekkewu ko mënoon na nëbbu mu tuub tuubu biiram wala mu toxu yonent bi ne ko demal nga am doom nga ñëw bëgg ko ubbil bunt bi pour mu yaatu pour mu tuub parce que yonent bi xam na kii lan moo koy fekk ci loolu mu dem am doom ci guddi gi suba gi fajar mu ñëw yonent xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko maay ki njaaloo woon nga ni ma demal ba nga am doom am naa doom mi ngi nii defal li yàlla wax ci def ci ma yonent bi ne ko demal nga nàmpal ko ba mu fer ndax ubbil ko bunt yi mu dem nàmpal xale ba mu fer yoon wi bëggul delluwaat mu jox xale bi dagi tumburu mu ñëw ne yonent gis nga xale bi mën naa lekkal boppam defal li yàlla wax ci man ndax bala may dee di dajeeg yàlla di yóbbaale salte yonent bi daal di sant sahaaba yi ne laxas leen ko ay ay morso ñu muur ko ay sër yonent bi ne taxawal leen atte yàlla ci kawam ñu dóor ko ay doj Xaalid ibnul Walid moo jël birig bu rëy dóor ci bopp bi bopp bi tasaaroo yonent bi ne Xaalid mah yaa Xaalid laqad taaba tawbatan law qusima ahlal madina la wasaatuhum tuub na tuub boo xam ne dafa ndànk xaalit kii tuub na tuub boo xam ne su waa Madina yëpp nekkoon nit ñu bon buñ ko séddalee tiyaabaam bi ñoom ñëpp ñu dugg aljanna te bu mu koy def kenn fekkiwu ko ñooñu la alxuraan defaroon parce que dañ ko dund nekkuñ di ko wax ñun dañuy wax rek mbokk yi nit bu gëmee loolu daf koy yëngal mu jóg nekk daai ila allah subhanahu wa taala allati amara allah an tuballaga bayna annas daawa boobu nga xam ne moom la yàlla wax nañ ko tasaare sahaaba yi bi ñu gëmee dañoo jóg nekk ay duaat ñoom ñëpp la tàmbalee ci abou bakar ba ki mujj ñoom ñëpp dañoo jóg di woote nañ xool ñun suñu bopp mu ne wala an yugayiraha ma bi nafsi hatta yugayira allahu xaala da ngay gis ku ne dama gëm waaye day toog du def dara lu baax soo ko nee lii nag mu ne loolu loolu la yàlla neex te xamuñu loolu fa innahu min alamati shaqa wal xislaan wa tamsil basira loolu dafa bokk ci mandargay texee di toog di def lu bon naan bu neexee yàlla dinaa dinaa baax loolu mandargay texee di la doomu ndey yi mbokk yi ixwaani waa jooju naan dafa gëm kenn du ko gis an yaamura bil maaruf wa yanha anil munkar kenn du ko gis muy digle lu baax kenn du ko gis muy tere lu bon bal boo demee këram wala nga xool ko moom ci boppam contraire bi lay def lu bon lay digle day tere lu baax ku bëgg a baax mu tere fu ñuy bëgg a def lu baax mu tere ko waaye lu bon guddeeg bëccëg ci la nekk parce que loolu lay encouragé mooy financé xumbal yi mooy financé football bi mooy financé làmb ji mooy financé mooy financé mooy financé amma lu baax falla ixwaani wala bi an yataxallaqa bi axlaaqi nubuwa doo ko fekk mukk mu am jikko yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi woon pour nit ñi am ko pour baax jikko yi nga xam ne moom la yonent bi santaane woon doo fekk mukk waa jooju naan la gëm naa yàlla muy roy yonent abadan bu dee xale bu góor la foo ko fekk jaaroom ci nopp bi mi ngi baram kawar gi mi ngi jël tubéy ji takk ko ci ma ngay diri tubéy ji ma ngay roy Jean ak Paul ak keneen waaye boo ko nee yonent mu ne noonu loolu jamono bu paase la woon loolu weesu nan ko loolu septième siècle la woon ba pare mu ne gëm na yàlla mu ne gëm na yonent kon ku gëm yàlla gëm yonent léppi Moustapha ngay dund lépp xanaa loo ci tële lépp ngay dund da ngay fekk waa ji jikko yu baax yi dara la ci amul jikko yu sell yi dara la ci amul au contraire mooy kii indi lu bon biir këram mooy kii soññ njabootam comme tey ni ñuy soññee sunu njaboot ci mbon xoolal góor ñi tey ak seeni soxnaak seeni doom yu jigéen nan lan mel ixwatal imaan yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala habibihi muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ixwat al iman gaa yooyu yàlla di joxoñ ci suratu nuur ci aaya 47 51 da ngay dégg kenn ci ñoom naan amanna billahi wa birrasul wa ataana gëm nañu yàlla gëm nañu yonent danañ topp yàlla topp yonent kalaamun xulwun wax ju neex a ngoog gëm naa yàlla foo taxaw wax ko wax ju neex la kalaamun xulwun kalaamun latif walakin ayuha al ahbab ayna al amal gëm naa bëgg naa ana jëf ji dafa feeñul ci sa jëf feeñul ci say wax feeñul ci sa dëkkuwaay yaag sa soxna feeñul ci li ngay yaree sa njaboot feeñul ci li ngay jàngal say doom feeñul ci sa jëflanteeg mbokk julit yi amanna billahi wa bir rasul wa ataana kalaamun xulwun wax ji dafa neex kese kalaamun latif wax ju lewet la walakin ayuha al ahbab ayna al amal ana jëf ji ana jëf ji ayna tatagayyur an nufus lu tax changé wu la lu tax loolu nga wax changé wu la lu tax laa wujuda la li nga wax nii fekkuñu ko ci yow lu tax hal kaanu bi zalika munafiqin xanaa kon naafiq nga bëgg a nekk te yàlla wax na ko ci quran ah da nga bëgg a nekk naafiq te naafiq du dugg aljanna borom bi nee na innal munafiqin fi darakil asfali min an naar naafiq yi ñoom ñooy xóoñu safara li ngay wax fan la feeñ ci yow إخواني لأنهم بعدما قالوا ذلك يعبر ربنا بكلمة ثم ñoom ba ñu waxee loolu ba pare yàlla bàyyiwu leen noonu de yàlla dafa ne après ثم يعني بعد ذلك عندما أتت المواقف وأتى الاختبار العملي رأيناهم قد رسبوا bi gaa yi ne gëm nañ bëgg nañ yàlla bëgg nañ yonent dara desul lu dul jëfe dara desul lu dul léegi wax ji jot na jëf ji jot na taxawaay bi jot na nattu bi tegu na nga gis waa ji mu ne waaye waaye noo gëm naa mais xam nga rek ndeysaan nga gis ko mu perte examen bi ndeysaan yàlla ne kii li mu wax du dëgg alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun da ngeen yaakaar ne da ngeen ne gëm ngeen ma bàyyi leen yàlla ne ku ne gëm naa rek natt yi commencé examen yi examen bi commencé ñu xool ndax li nga wax dëgg la waa ji génn amul dépasse mu fol kalbe ci buntu jàkka ji mu ubbi gis 10 000 ah ñu ne ko waxoon nga gëm nga yàlla de looloo la indi woon jàkka fajar léegi nag 10 000 yi nooy def mu ne mais aw ma dépassant ndeysaan ay na iman ana lim waxoon léegi ana lim waxoon mu xëy amul mu dégg benn carte bu ñu lancé bu bees ci télé bi wala rajo bi ndeysaan mu jóg dem uti loolu te moo waxoon léegi léegi gëm na léegi la sëlmal mi ngi nii mi ngi nii mu ngi nii jóge jàkka ja waaye ndeysaan gis nga ko amaana sax bi muy ñibbi dàllu jàmbur la yóbbaale ay dàll la yóbbaale dàllu jàmbur ci jàkka ji ayna al amal rasabu fil imtihan yàlla ne ñooñu perte nañu examen bi ñu doon wax ñu leen di natt yàlla nee na gars yi dañoo daanu wa fasalu fil ixtibaar daanu nañ ci examen bi lan la leen jural summa yatawalla fariqun minhum summa nara minhum wa minhum walaysu jamian lianna alimtihan darajat walmawaqif kasira narahum yatawallawna wa yuridun wa yajcaluna islamahum waqifan cinda xaddi lisanihim wa qawlihim duna an yataxadda ila cheyin axar ba waa ji waxee loolu après sunu borom moo ñuy nettali mu ne dañ ko gis mu wane ginnaawu lan mooy jëfam lépp lu doon ngëm yàlla jaasi la ciy dóor mu daan lépp luy tawxiid daf koy màbb lépp luy sunna daf koy màbb lépp luy bidaa daf koy dundal lépp luy shirk daf koy encouragé ana li mu waxoon léegi moom waa ji ñu gis ko mu du mooy wane ginnaaw lu tax mu def islaamam islaamu waa ji soriwu ko rek lu dul fan la islaamam nekk ci jëmmam yépp ak ci jëfam yépp lislaam baan ci catu làmmiñ bi man jullit laa léeg-léeg sax mu ne jullit laa ki muy waxal ne ko yow doo jullit mu ne ko billaahi jullit laa waa ji ne ko doo jullit mu génne carte d'identité bi allahu akbar bu jullit demee ba sa islam carte d'identité moo koy feeñal mu ne xoolal abdallah laa tudd umzur umzur abdallah ndeysaan loolu mooy tax ñu xam ne jullit la foofu lañ toll tey nag ci ci sunu gox sunu dëkk nu mu yàqoo ak ni jullit yi yàqoo mooy jullitu billaay jullitu billaay borom bi nee na min baadi zalika ginnaaw lii kalimatun muhim baat bi yàlla wax ci quran bi min baadi zalik كلمة مهمة لأنها تؤكد المراحل والأنواع والدرجات والمواقف المتتالية après ginnaaw loolu waa ji waxee gëm naa borom bi nee na baat bi mooy dëgëral après nag état bu état bu waa ji fu mu jóge lan la fa bàyyi fi mu jëm lu mu fay defi ba mu fa defee ba mu fa demee lu mu fa fekk lan la fa jëf su fa jógee fan la jëm baada zalik baat bi mooy leeral après waa ji dundam fi mu jaar yépp nañ xool fi mu jaar est-ce que bàyyi na fa luy wone ne kii gëm na yàlla ndeysaan fi mu jiite woon ba wàcc nañ xool ndax jëf na fa fi mu doon liggéey ñi mu dëkkaloon ki mu dencoon ñi mu juróon maraahil yooyu yépp nañ xool waa ji ndax ngëmmam feeñ na ci diggante boobu nañ xool doomam yi nañ xool soxnaam nañ ko xool moom boppam nañ xool ñi mu dëkkal ñu xool ndax bàyyi na ci ñoom dara ixwaani wal anwa wa darajaat nañ xool façon yi nañ xool daraja yi ñu xool ndax bàyyi na fi dara waaye wal mawaqif at taaliya ak taxawaay yi nga xam ne moo nekkaat ci kanam ñu xool ndax buñ ko nee yàlla nee na lu muy wax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dugg na ci marché bi mu fekk waaju takk lam ba mu ne waa ji assalaamu aleykum mu ne ko wa aleykum salaam la xam ne waa ji jullit la yonent bi waxu ko tekki lam bi dafa jàpp ci lam bi xëcc ba loxo waa ji dereetal mu sànni ko ci suuf mu ne ko walaw mitta wa haada fi yadika ma aflaxta abadan boo faatu woon lii nekk sa loxo doo texe mukk doo texe yonent bi wane ginnaaw ñu ne waa ji jëlal salam mu ne yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat kenn du ma soril safara may duggaat allahu akbar loolu mooy ngëm ñun ñaata yoon la ñu naan yàlla nga ne ah mais mais bon bon temps bi xam nga bon il paraît bon xam nga inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ixwani walakin allaha jalla wa ala rabbul alamin yunabbi'una bi anna hadha laysa min al iman borom bee ñuy xabaar ci alquran ci suratu nuur borom bi nee na ñu mel nii ak gaa yu mel nii gëmuñu wa ma ulaika bi muminin yàlla nee na ñii gëmuñu kon nag ku yàlla ne gëmoo gëmoo ku yàlla ne gëmoo gëmoo ku gëm ne kooku gëmul kooku gëmul ki gëmul ku ko bugg a dugal ci ngëm yow génn nga ñooñu gëmuñu képp ku dundul alquraanu yàlla bi képp ku dundal sunna yonent yàlla nee na wa ma ulaika bi muminin ñooñu gëmuñu yàlla yàllaa ko wax ku weddi boo jógee nga seeti suratu nuur borom bi nee na isan fa haulai nnaas yanbagi alayhim an yugayiru xayatahum kon li war ñu mel nii su fekkee ñun ñëpp nii la nu mel li nu war mooy ñu changer sunu dund an yugayiru xayatahum innama sha'nu lmuminin xam ngeen luy mbiru jullit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا yàlla nee na xam nga lu war jullit suñ ko ne hee yow jullit mu taxaw ñu ne ko kaay ci li yàlla ak yonent wax mu daal ne sami'na wa ata'na dégg naa dama koy jëfe est-ce que ñun waa Sénégal tey foofu la ñu toll bu ñu ne yàlla nee na yonent ne ñu ne waaye mag ñi nag waaye nag waaye nag aada ji nag ñun lii leen fi fekk waaye xam nga mag ñi liñ fi indi woon waaye xam nga ñun sunu sunu xeet xam nga ñun fi ñu bokk kon doo du ngeen ay jullit yàlla nee na du ngeen ay jullit li war mooy buñ leen nee ñëw leen yàlla mu ne sami'na wa ataana ñun dégg nañ dañuy topp lan la yàlla wax foofu mu ne wa ulaika humul muflihun ñii ñoo taxe allahuma ijalna minhum اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله mbokk yi ñu góorgóorlu tollale sàppe yi ci kaw ak suuf ñi ci biir ak ñi ci biti ñu fatt diggante yi ñu defar sàppe yi ñu fay portable yi ba ñu pare julli allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله assalaamu alaykum wa rahmatullah